mooy nit ñi da ngay taxaw nit ñu ne kii dafa bañ monsieur le maire kii Babacar Mbengue la bañ affaire yooyu noonu xam nga jullit utul ku muy bañ maanaam li ma la wax sànq rek moom moo ci nekk maanaam ñun yàlla dimbalee nañu ba toll nañ suñu àdduna foo xamante ni nii te dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax bu ñuy bëgg nit te yàlla tax lay doon bu ñuy mere nit aussi te yàlla tax lay doon. Babacar man dama koy wax diko waxat Sénégal Sénégal il est l'un des meilleurs politiciens qui qui ci Sénégal waxuma ci Sénégal parce que li tax mo wax ko moy Babacar Meng nit ñi dañuy ni musul fal Babacar Meng Il mus ko fal. la parce que aussi nit ko am vision la. pourquoi yaraax mus ko en 2009. boobu conseil municipal yi doon fal maire yi maanaam dañuy fal conseil municipal yi conseil municipal yi fal maire yi boobu Babacar mi ngi doon ñëw yarax nit ñi xamuñu ko mu dem balotage mok Ali Mbaye bi mu demee balotage mok Ali Mbaye nit ñi bu ñu ni consensus moo tax mi ngi jël mairie bi parce que demuñu vote Ali Mbaye ak Babacar mi ngi dañu am consensus li ñu waxtaan ba juboo ko ñoom ñoo xam kon donc consensus boobu moo indi maire Babacar kon ñun faluñu ko. ñu dem deuxième mandaam Babacar boobu xalifa mi ngi téye Dakar ci loxoom boo seetloo campagne boobu sax dañuy def foto xalifa Sall bu mag def photo Babacar Mbengue bu ndaw ci suuf moom lañ defee yarax yëpp donc foofu ci bannière boobu la jëlee mairie bi kon donc coalition bi lañ fal <clears throat> nga ñëw bi mais Yewwi Askan Wi mm. mooy ci barkeem la ñëpp demee mairie mm. kon ñun ban moment lañ fal Babacar ñu ne tey dem nañ campagne Babacar meng kese mo déposé kenn toppul ci ginnaam fal nañ ko lolu amul kon donc méritam la parce que li tax mu nek méritam la moy li la wax légui côté politique il est l'un des plus aguerris comme politicien ci Sénégal parce que aussi il est fort en communication nek na nit bo xamante ni dafa dal nek na nit bo xamante ni ku xam nit la xam ni muy waxee ak nit kon ñun mënuñu xam loolu yëpp am ku am yar la aussi am na yar. mais bu boo gisee may boo gisee may wax li may wax. Ah. damay lay taayee sama wax pour ñu xam ni. Hmm. man awma benn rancune. Hmm. envers Babacar Mbengue au contraire nit ku ma respecté la. mais nag dafa fekk ni ñun entroit lañ dëkk entroit lañ am. Hmm. endroit lañ xam mais Babacar Mbengue yarax en général mais ci ci ci magistère u Babacar amul lenn lu palpable loo xamante ni mën nañ taxaw fii ne lii Babacar Mbengue moo ñu ko defaral loolu amul te bu fekkente ni nag dañ la far maire nit ñi non seulement amuñu accès ci yow parce que Babacar waa endroit amuñu accès ci moom muy benn deuxièmement mooy yow ci sa magistère munoo jël sax benn benn trottoir nga ni trottoir bi Babacar Mbengue moo ko defaral waa endroit loolu beneen affaire la beneen bi ci des mooy que ni même événement yi am en mais Babacar bu événement amee Yara Tefes mais mooy sol yéreem dem Babacar mooy sol yéreem dem mais fii événement en trois mais depuis combien d'années gisoo Babacar kenn xewle mu ñëw yónnee na rek mais pour la muy yónnee te bu dee Yarax Tefes mu dem kon ñun amuñu rancune nag Babacar dafa ñu amalul benn njëriñ nit nag bu la amalul njëriñ. wax dëgg fa yàlla doo fi nekk nan ko yaa def lii ak yaa def lee te defalu la dara ñun waa en trois bañuñu Babacar daf ñu amalul njëriñ sur tous les aspects nag. mais lan moo tax mu mën a dem te itam mënut a ñëw fii wala boobu ñun dañoo amoon. non parce que aussi mooy li ma mooy li ma la wax mooy li ma la wax c'est des calculs politiques hmm. wax naa la léegi ne la c'est un politicien aguerri yi dafa mën a politique boo xoolee tey. entre waa Yarax képp seen base électorale solide wul Yarax Tefes mo gën a peuplé parce que gis nga <laughs> non Babacar wax dëgg yàlla man ni ma ko meree te mu nekk dëgg parce que li muy def yëpp il le fait sciemment maanaam lépp lu mu def suba ba ngoon moo ko tey xam na ko du ñëw endroit parce que endroit 15 personnes la fi nekk du fi def dara parce que 15 personnes ñoo fi nekk waa endroit bu ñu ko meree mënuñu changer cursus élection Sénégal ci mairie bi. parce que amuñu électorat buñ koy buñ ko mere woon ba àdduna di tukki mënuñu ko fal wala ñu folli ko parce que amuñu doole boobu xam na loolu comme moom defar intéressé wu ko cursus politique moo ko intéressé mais c'est tout à fait normal bañ a faale wu endroit mais man duma ma mere Babacar ñi dëkk endroit ànd ak Babacar man ñu laay mere parce que aussi man duma ànd ak nit ci yaa ma neex du ma ànd ak nit parce que loo may mosal doo may mosal parce que mënuma dëkk si dëkk faale dëkk bi ma lay topp loolu moo nekk li nga xamante ni nii pour man loolu la Babacar di def il le fait sciemment xam na ni deful dara entroit droit parce que xam na ni en bu élection jotee amuñu benn pois ci ñu koy fal wala mu koy folli mais au delà de ça xam na ni defu ko mën na ko mairie bi am na ko parce que da nga war a décentraliser maire ñëpp sa magistère ñëpp nga yilif mais tey benn modien bu bëggoon gis Babacar Mbengue pour ma wax la dara benn anecdote dinaa la ko wax tey bëggoon naa fi organiser benn euh, événement comme li ma la wax sànq ne la man ci tous mes diplômes ci coaching <coughs> ma bëgg a def benn euh, événement boo xamante ni si développement personnel lay doon mais pour ma gis Babacar Mbengue mais six mois ma topp si ginnaaw gis gis monsieur le maire waxuma gis président gis monsieur le maire mais si mois mënuma ko gis parce que en trois laa dëkk mais Babacar Mbengue ay jigéen bu ñuy tànn mbir yi raatafis pour ñu gis ko du doon dara kon donc lan moo a loolu mais kooku grand Youssou franchement man lan laa war a wax ci lu rafet ci moom bañuma ko dafa fekk ni faale mais faale wuñ ko faale wuñu faale wuñ ko lu ko neex mën na ko def te wallaahi man dama koy wax et je le répète te li ma ko te ku ma xam nga xam ko xam ni da ngay waxtaan moom dama la koy wax suñu yitte yëpp. dañ koy def mu jóge fi eh, mais lu ñu def la leneen ñu njëriñ suñu yitte yëpp dañ koy def lii vidéo bi na egg ba mu jot ci dañ koy def pour mu jóge parce que ñu benn njëriñ ñun waa droit parce que ñun bu fekkente ni tey li ñu soxla suñu marché bii tey ñu naan ay tey lay pare mandat bi lay pare kii ku xam ku xam ni administration di fonctionner nga xam ni Babacar mënu ko defar ci magistère am mandat bi mënu ci defar marché bi ay budget bi génn naa jënd nañu kër yeeg yooyu lañuy wax. dañuy nax nax mais grand Youssou. Hmm. lépp loo gis dafa am procédure. bu jëndee kër gi dañ war a joxe marché bi ay recensé nañ taabal yi ok recensé nañ taabal yi mais ana plan ah bu defee plan tey naka ñan lañ koy jox ñi ñu koy jox nan lañ lañ koy joxe hmm. heure bi woote woon nga pour wax nit ñi ñu xam mi marché bi période bii lay commencé. période bii lay jeex nombre de boutique bii lay am nombre de douche bii lay am nombre ci suuf nombre de table yi ñoo fi mën a nekk bu jeex buñ ci jotee ñii ak ñii ak ñii lañ koy jox wax nañu ci dara bité bi génn rek ngay dégg depuis kañ na bàyyi caaxaan yi mu nekkee te xam ni ñun suñu yite suñu yite gis kuñu candidat ñun yàlla nañu yàlla bëgguñu politique amuñ sa jot bi mais suñu yite